Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk Sénégal yéen ñëpp sant. di rafetlu seen teewaay sur les programmes de Salam Vision Salam Vision di nuyu képp koo xam ne yaa ñuy à travers la diaspora yaa ñuy suivre sur internet YouTube un peu partout sur le plan mondial euh, di gërëm kilifa diine yi di gërëm le khalife général des mourides nekk bés bu mag di Kazu Rajab euh, di fàttaliku bés bu mag bés bu mucc ayib bés bu tedd di fàttaliku xam mooy sëñ Fallou Mbacké nekkoon fii ancien khalife général des Mourides bu euh, sëñ Touba euh, kan moo doon sëñ Fallou Mbacké mi gën a en nekkoon nit ku baax nekkoon savant di nitu yàlla euh, nitu diine nitu lislaam Kazu Rajab nag nekk na bés bu am solo di bësu ñaan di bësu mbégte di talal loxo kilifa diine yépp ñëpp ñoo ko bokk bu ñu nee euh, Kazu dañuy fàtte bu baax tam mooy Serigne Touba le fondateur du mouridisme nekkoon di woote jàmm si réew mi ay jamonoom di talal loxo kilifa diine yépp euh, ku mel ni le khalife général de Tidiane le khalife général de Layène des Niassène euh, le khalife général de Kunta Kunta di gërëm ñëpp te Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk euh, nekk na bés boo xam ni bésu ñaan la di waat Sénégal yi ñu ànd ak dal di wàcce ay kaamil di tudd yàlla di tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, tey boo demee Touba euh, ñëpp a ngi koy fàttaliku bés bi di Kazu Rajab di fàttaliku bés bu tedd bi nga xam mooy sëñ Fallou Mbacké daan woote jàmm ba si kilifa diine yi Euh, di def ay ñaan xam ngeen ni euh, fitna temps yi mi ngi tegu si kaw réew mi dañuy ñaan yàlla yàlla dàq fitna boobu gis ngeen ni fan yi am na doomu aadama yu bari faat euh, takk day leen ñaanal parce que ñooñu ay doomu Sénégal lañu muy suñu mbokk gendarme yi suñu mbokk policier yi ak suñu mbokk militaire yi ñoo ko bokk tey sëñ xalifa général des mourides jàmm rek lay woote ñu Euh, bañ a dajaloo dajaloo bi dafay indi ay gàllankoor xam ne nañ feebar boo xam mooy le coronavirus mais moo tax ku nekk war nga toog sa kër di wàcc say kaamil di def ay ñaan di fàttali bés bi mooy bésu Kazu Rajab Kazu Rajab bésu jàmm la euh, jamono sëñ Tuub sëñ Fallu Mbàkke jamono daan woote nekkoon xalifa général des Mourides ma ne askan suñu gaal di woo suñu mbokk murid yëpp nekk euh, Touba. Thiès Saint-Louis partout au Sénégal nañu wàccee kaamil pour réew mi yàlla dolli fi jàmm dox si dox si ndox mu sedd jàmm si la lépp xaj euh, moom la doon sëñ Tuubaa doon woote élargissement li si moom la doon jooy guddeeg bëccëg ba si kilifa diine yi fi nekk tey Sénégal bii ma ne réewum Sénégal dëkku diine la dëkku lislaam la Sénégal dëkku jàmm la euh, bu gaal bi suruxee ñëppay suruxaloo kenn ñaanu ko yàlla Euh, gis nga ni fitna yam si àdduna bi partout boo demee Afrique ni ñaa ngi xeex li seen réew yoo xam ni bokkuñu diine ñu ngi reyante guddeeg bëccëg ni ñaa ngi dee ni ñaa ngi daw mais suñu senegal bi kenn du ko xaj ñaar li ñu ñaan yàlla rek ñu toog di waxtaan toog di diisoo ñun loolu la ñu yàgg xam si euh, diine islam fii diwaanu senegal di ñaan borom bi julli chef bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Muhammad sangu sang yi Euh, ki xam mooy suñu royukaay nekk suñu xol bëgg ko lool moom la sëñ Tuubaa doon woote jamono yi sëñ Tuubaa doon tagg yonent bi bu dégg bëccëg jamono yi sëñ Fallu Mbàkke kooku yàlla ñu koy présenté Sénégal yi tey bësam la tey ba ne tey Touba ku lekk yaay toog sa kër di ñaan di wàccee say kaamil di euh, ñaanal réew mi ñaanal kilifa diine yi ma ne loolu mooy Sénégal euh, spécial casu Rajab la ñuy def tey di woo fépp taalibe yi nekk bitim réew ñu nekk partout xamante boo demee tey partout dans le suñu mbokku murid yaa ngi fa euh, suñu mbokk euh, tijaan yaa fa ñu taral suñu loxo borom yàlla yàlla def ndox mu sedd wis ndox mu sedd ci Sénégal Kazu Rajab du woo di wote Touba ñu wax suñu mbokk yi nag murid nag Touba nañu ko ne def ay ñaan nañu toog di diisoo euh, nañuy waxtaan waxtaan si lépp xaj loolu bu ñu ko defee Sénégal du am benn gàllankoor Kazu Rajab di woo tamit ci mbokku Ndakaar bi euh, boo demee tey Massalikul Jinaan nekk jumaa ju mag nga xam ne tey keroog rek ñu koy faral ko daaw seen ko xalifa général day murit doon inauguré si tamit ay kilifa yu tàpp tey dañ fa ay ñaan lañ fa wàccee ay kaamil euh, naam lépp di woo taalifa yi ñëw yëpp ñoo nekk yar ànd ak dal euh, takk seen i masque raxasu te ñu moytu feebar bii ma ni feebar baa ngi si biir réew Euh, sëñ yi ñuy woote jàmm yu takk masque yi di def lu baax euh, di def ay zikër di wàcce euh, di ay xasaay loolu mooy Sénégal spécial édition Kazu Rajab nañu gën a góorgóorlu mbokk suñu gaal woote jàmm loolu la ñuy woo ñëpp di woote jàmm boo kilifa diine yi ñu tey seen kurus yokk jàmm si réew mi loolu mooy Sénégal askan suñu gaal tey dañu fase loon tey Euh, waxtaan ak askan bi waxtaan yi ñëpp bésu Kazu Rajab bii di bés bu mag bés bu mag bés bu mucc ay ñaan borom rek yàlla def fi xéwal baawanal Sénégal di woo kilifa diine di woo gouvernement bi ñu gëstu askan bi ñuy waxtaan ak ñoom ki nga xam mooy njiitu réew mi moom la fi yàlla teg di président Macky Sall xam ngeen ni discours am keroog ah ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu woote na discours dal discours jàmm président Sall nee na ñu talal loxo ndaw yi. ndaw suñu gaal nañu giif euh, delloo suñu xel si yàlla que réew mi kenn ñaanu mu tàkk kenn ñaanu yàlla mu boy loolu mooy paste suñu njiitu réew mi loolu tamit moom mooy xalaatu kilifa diine gis ngeen ni euh, lu mel ni organisation des am na ay émissaires yoo xam ni jóge si gouvernement bi dem seeti kilifa diine yi ngir ñu wàcc jàmm di gërëm ñu ñëpp bésu Kazu Rajab bi occasion la waxtaan occasion Euh, wéccoonte ay xalaat du diirante mbagg nañu tab nañu nañu xoolaat jikko yi defaraat loolu mooy suñu suñu loolu mooy Sénégal bu ñu ko defaree incha allah yàlla na fi def ay xéwal dina fi def sutura di woo ñëpp te xalifa général bi murit euh, di ko ñaanal yàlla yàlla na fi yàggatu wér ànd ak dal mooy xalifa général bi murit di def liggéey bu mucc ayib woo suñu mbokku taalib bi yëpp nañu gën a góorgóorlu lii la seen tubaab doon woote lii la tous les xalif généraux dem woote muy cees muy partout muy Tivaouane loolu mooy Sénégal jàmm la ñu bëgg te jàmm la ñaan yàlla di ñaan bës bi nekk bés bu muccaay bës bu réussite bés bu nattange ñaan ko askanu monde bi yépp euh, mooy Kazu Rajab loolu moo doon passe fi sëñ Fallou Mbacké loolu moo doon euh, gis-gisu sëñ Touba bi nga xam mooy Euh, le xalif le sëñ di bëstu sëñ Tuubaa di fondateur du mouridisme gis ngeen sëñ Tuubaa ay jamonoom euh, nekkoon ni ku mucc ay jéggoo na ñëpp te jàmm rek mooy sëñ Tuubaa euh, di ñaan ñëpp di gërëm ñëpp askan suñu gaal jàmm ak jàmm moo tax tey si bésu Kazu Rajab bi ñu ngi wooy ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla na fi yàlla def jàmm mooy suñu Sénégal di leen gërëm leen sant mbokk yi jërë ngeen jëf beneen